bëggoon a wax balaa ñuy ñëw bokk na ci tey euh, laytaay bi lan mooy li nga xam ne mooy xam sa bopp yéen dangeen ne gëm sa bopp man damaa teg gëm sa bopp ne ñëw ci xam sa bopp xam sa bopp bokk na ci lépp lu ëpp sa bopp bokk na ci xam lépp lu ëpp sa bopp. xam sa bopp bokk na ci lépp lu sa bopp. xam sa bopp damaa juum jëliwaat ko. mu melni dama yëkëti mu rëcc ma jappat yow doo ma dégg quoi yëkëti wat waaw xam nga nopi célibataire nga yor motax tax. jëf ay ci moo motax doo may dégg quoi ha <laughs> waaw. ku bëgg ñu dégg rek kenn du la dégg. <laughs> mané xam sa bop mhm. bokku na ci xam li ëpp sa bop mhm. ak li sa bop tollol ak li sa bop ëpp. manam mhm. li la supérieur li nga supérieur ak li nga tollol nit bu xamul boppam ah du kon mu mel ni ah, ñi àttan lu diis nangootuñoo lu mu kon ñi atan lu oyof lu wër kon yëf yi daa jaxasoo mhm. mu ñu bari jiite jiite leen gënal jiitu. jiit yi moo leen jiite moo leen gënal jiitu. kon léegi rawante rawanteeg njiit. moo xew. waaye du rawanteeg jiitu. jiitu daa yombul moom. waaw. jiit yombul rawanteeg njiit. moo xew waaye ñu bari rawantewuñu wu jiitu. dëgg fa yàlla. bëgg a jiite waaye yàlla. jafe ku jiituwul fa yàlla mënoo koo mënoo koo koo jiitewul koo jiituwul fa yàlla. Mhm. mënoo koo jiite fa yàlla. dëgg la bi ci guddi laa ko doon bind boori trois heures. da ngay wax dëgg la de. damaa toog rek damaa toog rek mu ñëw ci man. xaw ma da ngaa xalaat bind xaw ma. damaa damaa toog rek ay trois heures. Ah, da ngaa toog bind. wallaahi yàlla xam ñu ci sa xel rek bind. yàlla xam na ko. Mhm. waaye lépp mi ngi tukkee ci xam sa bopp. kon loolu moo xew léegi da ngay gis nit di diir kum tolloolul ku def loolu xamoo sa bopp ki gàtt di jiima yuqamtiku bëgg a tolloo ki njool wolof ne yuqamtiku yokk na yo eh, eh, maanaam yuqamtiku yokk na njoolaay waaye du yàgg ay mënut a yàgg ndax nekkul lu naturel Abdoulaye li may wax dafa ëpp sa bopp <laughs> seen niveau seen seen niveau tollul foofu <laughs> dama laa dépassé fi mu ne nii booy. Ah. non mi ngi lay dégg mi ngi kon loolu moo xew léegi rawanteeg njiit waaye rawantewuñ jiitu te suñu mag ñi dañ daan rawante jiitu ba jiitu fa yàlla door a mën a jiite. kon kuy roy ku baax roy ko ca nam def ba jiitu mm. waaye boo bëggee tëb roy ko ca nam def ba roy ko ca njiit la du soti dëgg nangu nga tay nangu na wa ok. non man dama daan bañ wala. da nga nan bañ kay yow ngay kat bu mag. man xaw lu tax rek. mo am benen nak bu dess abdullah bay Samba. Mhm. mu amoon lu ñuy wax jom. Mhm. waye lan moy jom. bokku na ci jom. Mhm. bokk na ci di jomb lan mooy jomb lépp luñ naa acam te nga bëggoon caa jëm dégg nga ko lépp luñ naan acam te bëggoon caa jëm ah joma fa yóbbu waaye jomba tax nga wan ko ginnaaw lépp lu ñu naan accam jom mën na la caa yóbbu waaye jom tax nga wan ko ginnaaw. xam la nga war a def def ko. waaw. xam lu la jom nga. muy wax wala jëf nag. Mhm. nit ki jomb na maa wax nangam wala jomb na maa jëf nangam. Mhm. nit léeg mhm. dina tax mu dem tukki. ngir bëgg am lu mu am. waaye lañ ko bëgg a liggéeyloo. ak jombam moy tax jomb na liggey lola bu deb julit la lislaamam sant ko ne ko nangam kat baxul mune a ah jomb naa ko ngir sama l'islam wala jomb na ko ngir sama ngor mm-hmm. kon legi jom jom jom amna mm-hmm. waye jomb moo amatul jom amna waye jomb moo amatul waw jomb nak day melni ni teggi digeunte jom ak jomb day melni ni tekki ak teggi ñu bari seenu tekki seenu ñàkk teg teggi na ko sëñ Fallou si waxee woon seenu ñàkk teg gi moo tax ñu teg la yu bari Abdoulaye da ngay concentré wu ci émission bi déglu li ñuy wax bu mu ne amalu la importance nga sëgg sa téléphone di manipuler dañu ne émission fowuñu eh, information non non non fowuñu information lay xool. non non xoolut information fowuñu <laughs> li ñuy wax dafa mel ni amalu ko intérêt da ngay déglu fii ñu wax soo amee loo wax soo amul nga concentré wu nga déglu li ñuy wax mën na laa jariñ loolu mooy yoon. waaw kay kon loolu. moo amatul. ñu bari seenug tegale seenug ñàkk teggi dara tax ñu tegale yu bari waaye am na lool bu ñu ko teggi woon duñ dajale bay tegale. duñ jaar foofu yëpp kay. duñ jaar foofu yëpp. Mhm. bari na ñuy teg ci natt daanaka teggee tax ñu ñuy teg. waaw. <laughs> Eh oui, oui, ben ça me I'm kon bokk na ci jomb ak jom mooy fexe ba li nga moom te bokk ci lu waay bokkul lu waay bokk su yokkuwul yaa ko wàññi ab laata moom loolu man maa ko jël ak yi tey mu dee <laughs> Só eu, só eu. Loxoy da ini, soo ay tey loo ko xëyee nii waa jaww. man ab célibataire dama mënul ci moom dara. sa waay tey ci fajar ba léegi da nga ko xëyee ci fajar ba léegi da ko xëyee. ca groupe ba laa ko tàmbalee waaw kay ca groupe ba léegi xëyee nga ko. xaw ma fu ngeen jaar dem ci guddi. moom xoolal dina moom xoolal micro kon ndeysaan mi ngoog loolu day neex ci tooñante yi ci biir ci yëf la bokk xorom la ci <laughs> sànni na micro ba pousse na ko. <laughs> damaa jàpp ne démb ci guddi ndeysaan lii mooy jàmm. Mm-hmm. su fekkoon jàmm amul ci suñu biir. Mm-hmm. suñu ñëwee rek mu feeñ ci émission bi. waaye jàmm ju ñu séq moo tax ma sañ koo wax Abdou Lahat sañ koo wax Baye sàmba kon mi ngoog loolu moo war a am nag ci suñu biir am ci rajo yi am am am am fépp <coughs> eh, kon nag ñu daal ñëw dalal gan gi